asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm si seen flash kàddu mi leen tàmmal indil xibaar yu neex yi te ñu fas yéene ànd ak yéen jàngat yeesal yi xarala yu bees yi indi li ci njëkk mooy dem saytu lu ñu duppee challenge open big data D4D bu groupe Orange nga xam ne li ko tax a jóg mooy lu jëmale réew mi kanam ak nekkinu doomu aadama yi su loolu weesoo dinañ wéy si édition bu njëkk bu hackathon Orange fii ci Sénégal te Sonatel taxawal ko nga xam ne ay ndaw yu xarañ ci wàllu xarala yu bees yi ñoo ci doon jongante ngir fént ay jumtukaay yu duppoo ak soxla jamono ji duñu jeexal suñu flash kàddu bi te waxuñu lu jëm ci code camp Emerginov 2015 mi doon sargal projet ndongo daara yu kawe yi taxawal te sukkandiku ci xarala yu bees yi bismillah ci seen flash kàddu li ñu tey mooy challenge orange di for di di njëriñu luy ruusee ci luy jàllale xibaar yi ci réseau mobile yi ak internet. yan saafara la saytu données yooyu di indil jàngoro askan wi tontu laaj boobu ak seen reportage 100 pour lu tollu ci at. dalee ko avril 2014 ba avril 2015 Sonatel ak Orange lëkkaloo si ak commission bi sàmm données personnelles yi di CDP jébbal nañu ay données yu ñu taataane si seen réseau mobile téeméer ak juróom fukki këru gëstukat yu wasaaroo si àdduna bi yépp données yooyu nag sàmm nañu leen ba kenn du leen mën a ràññantale. Cette euh, initiative, c'était de voir comment lenn ci li ñu itteeloon mooy wane ni bu ñu gëstoo données yooyu dinañ yokkal ay jumtukaay ngir ñu gën a mën taxawal ay saafara ñeel itey askan wi. lu tolloog juróom benn fukki projet ñoo sekkoon jongante bu mujj bi fukki projet yi gën a amal solo askan wi sargal nañu leen ci université Boston bu Amérique MIT ñetti ci projet yi gën a yitteel suñu réew te jëm ci wàllu mbay. wérgu yaram ak statistique nationale jébbal nañu leen nguuru Sénégal. Um, jongante DFOD di nekk na lu jiitu ci gëstu yi tijjil gëstukat yi mbir yu mel nii dina um, yokk te gaawal xarala yiy jëmale askan wi kanam. mu nekk jéego bu am solo bu Sonatel si jàppale nguur bi ak askan wi si lépp lu jëmale réew mi kanam. li ko dalee fukki fan ak juróom ba ci fukki fan ak juróom ñaar si weeru mai bi ñu génn Sonatel doon na amal édition bu njëkk bu hackathon bu Orange fii ci Sénégal ay développeurs yu xarañ la ñu tànn ngir ñu sottante xalaat te taxawal si diirum ñaari fan ay jumtukaay yu mucc ayib jëm ci fowukaay wérgu yaram jàngum xale yi mbay ak jënd ak jaay jaarale ko si internet wala mobile. Flash Cadeau teewee na ko lii la leen fa jëleel. Sonatel ànd si ay acteurs numériques yu suñu réew ak yu bitim réew taxawal édition bu njëkk bu boole woon lu toll si téeméeri développeur muy jogante xarala bu am doole boole woon lu tollu ñaar fukki projet ak benn. ñetti projet lañ fa gën a ràññee ba jox leen ay raaya muy application El School app mi tax nga gën a mën a xam bërëbu jàngukaay yi nekk si réewu senegal yépp ba noppi nga mën see bindu ak foo mën a nekk. projet wàllu di lambu yéeme booy takk ci sa loxo muy saytu xolu ki ko takk ba noppi woowaa kër docteur saa su ko seen yaram yi teewoo. ak application Dolphin Search mi tax ndaw yi mën a yokk seen gëstu ci internet. loolu ngeen gis yëpp di ay projet yi ñu yàkkamte gis ñu taxawal leen ngir gën a jëmale suñu réew kanam ñu jeexale suñu flash kaddu at code camp Emerginov 2015 di jongante bu Sonatel taxawal ngir sargal ndongo daara yu kawe yi gëstu ci xarala yu bees yi ngir dooleel écosystème innovation fii ci Afrique Emerginov di jumtukaay bu wóor yaatu te yombal ndongo yi seen gëstu ak saytu ci wàllu taxawal xarala yu wóor te gaaw jëm ci mobile ak internet. groupe Sonatel amal na itam ñaareelu édition bu Codecamp Emerginov di jongante bu boole fukki daara yu kawe. ku si nekk taxawal ay jumtukaay yu jëmale réew mi kanam ndaje sargal ak tappal raaya projet yi ëppal solo réew mi ma nga amee woon amphithéâtre UCAD 2 ci teewaayu Alioune Ndiaye directeur général bu Sonatel ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru juillet bi ñu weesu raaya bu njëkk bi ñu ngi ko jagleel application Kaaraange mi saytu wisitu jigéen ñu wan a lor ñaareelu raaya bi dikkee daara ESMT ak seen application Diamond application web ak mobile bi tax bërëb bu ñu duppee centre de transfusion sanguine di ñaax doomi réew mi si ñuy maye deret ngir taxawu doomi aadama yi ko yittewoo daara ESP moo jël ñetteelu raaye bi ak Afia Center di benn système buy tëral ay rendez-vous médicaux si ay kiosque vocal ak SMS. jéego yooyu yépp di wone taxawaay bu am solo bu jumtukaayu xarala yi am ci jëmale kanam suñu dëkk suñu réew ak continent Afrique kon nag mbokk yi. fii la ñu tëjee seen flash kàddu bi ñu fanaan ak jàmm te di leen dig daje ba beneen si yeneen xibaar yu neex